ci appréciation yu négative yooyu ñu am ci seen 100 jours à la tête du pays euh, d'abord mu mënul këpp yelwaanu kenn euh, Bougane dinaa la wax leen duñ ko may euh, occasion bu mu brûler étape brûler étape waaw xam nga Bougane comme ni leen Macky Sall mayee occasion ngeen brûler étape <laughs> non non ñun ñun ana on doit bien venir Maïmouna Maïmouna dans l'histoire du Sénégal est-ce xam nga ne seul seul Pastef qu'on a venir au pouvoir Macky Sall moo leen may occasion ngeen burle étape mm-hmm, warul woon mm-hmm. dàq Ousmane Sonko amul waxoon na ko ko déet mu dàq Ousmane Sonko def ko victime mu nekk euh, un héros ñun ñu koy woo di ko xëccoo palaat lu ñu Ousmane Sonko bu waxee ñu dagg dagg dagg Ousmane Sonko bu demee assemblée ñu dagg dagg régime bi commencé fatt di rey boppam loolu ngeen di bañ a may bugaan. non loolu dafa yomb. ah bu fekkee Ousmane Sonko loolu la amee lii. loolu ngeen di non foofu la démarré. ah non non non non li mu am. foofu la démarré de. waaw Ousmane Sonko li mu am xoolal li ci njëkk mooy d' abord. dëgg Pastef boobu boo jëlee loolu daf ko liggéey. ah mais pourquoi travail mais bugaan c'est un homme politique Ousmane dafa am éthique non bu ma wax waxi bugaan bugaan man laay bañ a dégg wax dëgg yàlla. Ah. parce que bugaan xam lan la non c'est-à-dire bugaan mënoo jël yow koo xam ne amul il est moyen zéro zéro yaa ngi dégg quand même nga di ko jël mu war a romb ñi nga xam ne tey ñoo am au moins zéro virgule un ak un pour bëgg a taxaw nekk au devant parce que tout simplement à la une yëpp moo ciy nekk Bougane man tax defuma ko alter ego parce que Bougane motul xam état à part état moto ko laal xamu ko. mais c'est un grand homme. yaa ngi dégg nga ne. c'est un grand homme d'affaires c'est un grand créateur de richesse et d'emploi. justement c'est ça le drame nag. nekk politique rek kaay ma wax la nag. te ça le drame te ça le drame nag. parce que dama lay wax benn affaire. quand tu vois un Youssou Ndour gis fi mu jaar di développer di dem. quand tu vois un Sidi Lamine Niass da gis fi mu jaar yal na yàlla yokk leeram nga gis ni muy dem di développer. mais un Bougane qui passe d'animateur jékki-jékki avec des milliards. déedéet bul bul bul eh, bul écorné nag. ah mais. wax ma leneen ma leneen déedéet wax ma leneen waa xaaral xaaral xaaral ma xaaral dafa nekk euh, Walfadjri jékki-jékki bàyyi dem États-Unis jóge États-Unis ñibbisi États-Unis taxawal taxawal agence waaw d'accord d'accord di exploité d'accord d'accord dem ba florissant. fan la ba fan la ah, ah, fan la marché yi jógee ah xaaral c'est bon pour l'histoire. non non c'est bon pour d'accord d'accord Maymuna mu commencé yóot Maymuna di dem Sen TV di taxawal Sen TV Maymuna duma d'accord ci loolu état tey ku mu bëgg nga nekk milliardaire tey tey nga nekk milliardaire man bëgguma mais l'état doit enrichir mais Maymuna les les ces Maymuna est-ce que xam nga ne à chaque fois qu'un régime vient il y a de nouveaux milliardaires et il y a d'autres milliardaires état dafa war a créer ay milliardaires déglu ma déglu ma déglu baax de dama la bëgg a wax ne ce qu'on appelle la puissance structurelle Samsung bu joxee Bougane. kaay euh, kii yam c'est pas l'état man dama la ne. dama ah? lay wax lu leer dama lay wax lu leer. les maisons de téléphonie bu ñu joxee Bougane. milliard seen seen marché c'est pas l'état. Maïmouna ça n'a rien à voir avec l'état. Maïmouna am na un temps ici d'accord faisait partie des plus grandes agences de communication. Maïmouna premier tour de pont bi nga xam ne moom moo lay jox alal tey kuñ ko defal nga nekk milliardaire. état bu ñëwoon tey jox la benn kii nga départ après ñëpp yéen yëpp yaay gagné yëpp cest à loolu man du mérite li ma la bëgg a wax foofu. ci affaire bu defee loolu état fayiru. non dama laa bëgg a wax ne man état dafa war a jàppale ses citoyens. Youssou Ndour dafa nga di ko gis. mais koo xam ne dañuy ñëw defal la benn bum nga dem man yooyu moom mënu ma. non du bum nga dem nag monsieur le ministre je suis pas d'accord am na yooyu dama la dem. c'est quelqu'un qui un parcours et un parcours mm-hmm. ak un modèle économique qui a inspiré déedéet pas du tout ah je suis pas d'accord te du ma du ma moo tax bëgguma jox benn ku ñu koy waxee benn benn benn assimilation à une légitimité politique ça n'a rien à voir la preuve saa yu jógee lu may wax ku matul créer emploi ku matul def lii matul def lii dama ne la à chaque fois qu'un nouveau régime am ba ci ay couleur ba ci ay logo day ñëw avec ses hommes d'affaires quand on a une économie structurelle da ngay gis nit ñi ni ñuy yéegee ni ñuy demee di dem ba nga gis fi ñuy dal mais dans ce monde là y' a beaucoup d' entrepreneurs yoo xam ne bul xam nu ñu xamee nu ñu amee seen xaalis mais la suite day mujj blanchir li def wala da koy combler li ma la bëgg a wax mooy Youssou Ndour je respecte son parcours d'homme d'affaires Ahmed Cheikh euh, comment dirais-je euh, Sidy Lamine Niasse je respecte son parcours d'affaires mais ñun Sénégal lañ dëkk kenn mm-hmm. mënu fee tëb télé yëpp ay am marché état. kenn mënu fee non dama la ne marché état daal bu la jox fekkee moo ñëw def la benn bum nga bëgg ne yow da nga nekk un grand entrepreneur. loolu gëmuma loolu recette publicitaire yi état moo koy joxe. ah 70 pour li ma lay wax nii boo gëstoo boo gëstoo li nga bëgg ko wax de toute façon légitimité ko jox légitimité bu mu amul. moom mënu la jàll parrainage amul benn benn mérite sur le plan politique bu war a tax. mu war a nekk le répondant de Sonko man tax nanguwuma ko parce que maa gën a xam état xamul état praté wu ko pratiqué wu ko yi muy wax yépp moom ay problème mu voilà man maa créé emploi maa def nii maa def donc waaw mais amul parrainage d'accord c'est un parti c'est un mouvement bu mu teg mu dem euh, élection élection élection locale am plus de deux cents Euh, plus de deux cent conseillers jarul xeeb mais est-ce que loolu war na ko dénier le droit en tant que qu'homme politique d'apprécier la marche des chose ah mais oui il a le droit d'apprécier il a parfaitement le droit d'apprécier. pourquoi mënu leen ko nangul mu jàkkaarloo yéen di wax euh, xëy na ci li muy wax am na am na lu mu leen mën a jàppale. non am na ci marche de l'histoire boobu et il veut s'opposer na dem nag topp rang bi loolu rek cest dire moom ñun bu ñuy wax dañuy xool par exemple quand un Amadou Ba wax man dama koy jox crédibilité dama yow jox crédibilité parce que sañ na wax parce que moom moo ñëw toll na fu ñu mën mais ki nga xam ne yow yaa ngi fële te yow yaa ëpp coow ala une yëpp yow la ñuy teg ci au devant man et puis yow ban argument ngay wax parce que voilà affaire du ay kii man maa joxe et puis tu parles d'antisystème alors que tu es même le système mooy li ma la wax quand un régime vient il quand un régime part yenn om d'affaires yi daanu yeneen yu bees ñëw on n'a pas une économie structurelle donc loolu laa la bëgg a wax quelqu'un boo xam ne dangay xam ne kii moom am na fu mu jaar bu demee ba imposé wu dans le monde de la comme de la publicité da xam mais tey état tey bu fekkoon ne da koo neex day ñëw benn waaye jox la benn ay marché jox la marché 5 milliards de com nga gagné ko tu deviens milliardaire où est le mérite ana tel mériman après bu la neexee nag nga jaar voilà dem États-Unis dem yooyu yëpp dit nga may mun a Sénégal xam nañu li xew c'est-à-dire man je ne veux pas qu'on me parle man bu ñu ma waxee ku crédible parce que gëm-gëm la parce que xam-xam lay waxee